compagnie Serigne Seck Sénégal C3S moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind bi dina door benn fan ci weeru janvier 2021 war a jeex fan weeri fan ak benn ci weeru janvier 2021 li bees ci jongante mooy concours zonal bi ñuy amal jagleel jagleel ko région yi di Matam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 76 70 736 36 36. dagg ay soxlaam yëg la ji ngénte la ngénte la jot mu yendoo caa sonn ba ngoon yaakaar xale bii ne bu màggee xale boobee màgg di ko fontoo mu mën ko wax kañ la la ngénte xar ma nu mel kana kana ca teewoon kooku kooku ku koy jàll dalaa waxul sa bopp moo tax wa bi dil qurba ki la jege lool sës ci yow sa dara ump ko moo tax alof yi naan nit ki diggante fi ñu koy dooñee tëral ko dooñ tëral nag am nañu ko dul xam mooy bi muy dóor a judd ñu teg ko ci lal bi bokk ak fi ñu koy tegee ci jaat gi ña fekke woon ak juddooma ko faatoom luñ ko fi waxalul dañ ko sàng sutura waaye luñ luñ fa xamul amul moo tax nit du tëb naan mana nit buñ ko dooñee teg ko sangaat ko di ko tëral di ko bëgg a yor ci paxum bàmmeel luñ ko fa waxalul day luñ ko suturaal waaye du luñ xamul ndax nekkul beneen nekkuloon ci beneen nation nekkul ci beneen état ñi ko doon xool rek ñoo ko doon xool ba tey moo tax kon teggin baax léeg nit ñu wax ko boppam wala ñu wax ko démbam la waral mooy ñàkki teggin moo tax seexul xadim radiallahu anhu ne rafeti teggin dafay nëbb ak réer di nëbb ay bon bon rafeti teggin dafay nëbb ak réer di nëbb ay bon kon yàlla ne wa bi dil qurba ñu sës rëkk dëkk ci kër gi fekke démb sun borom neen na nga rafetal jëm ci ñoom wa bi dil bi mu noppee ci dil qurba directement dafa dem ci yataama muy jirim lu tax te ñëwagul ci dëkkandoo rek tudd yàlla tudd yaay ak baay tudd tudd tudd mbokk mi mi fekkee lépp ak jirim lu tax jirim daa xam ne jirim ñàkk na ku ko sàmm bu dee bu jigéen bee bu fekkee yaay jee faatu amatul yaay il faut yaay adopté ko bu fekkee baay bi moo faatu amatul baay in faut que baay adopté ko kooku dañ koy teel a lijjanti moo tax bi mu jë bi mu jëlee yi importance yi dafa daal di jël jirim teg ci sësale ko ci moo tax yent bi sallallahu ne woon na ngeen sàmm na ngeen sàmm ci ñaari way doyodi yi te ñu ngi ci société bi ñu ne ko kan kan la mu ne jigéen ak jirim jigéen ak jirim jirim ñàkk na lu ko sàmm te ta génn ci société bi moo tax yonent bi sallallahu doon wax ne ku raay bopp jirim mbaa nga bégal ab jirim mbaa nga dimbale ab jirim ana wa maaka hakada fil janna maa yow nii la ñuy dende aljanna ndax lan dafa ñàkk lu mënta ñàkk muy ndey ak baay wa bithil qurba wal yataama ak i jirim wal masaakin effectivement ak ku amul masaakin mooy ku amul nit koo xam ne toll na ne yow ëppoo ko sutoo ko gënoo ko ndey gënoo ko bàyyi waaye yàlla nattoo na ko amul te ñàkk metti lool yàlla ne na ngeen rafetal jëm ci ko amul ñaar daa am ku amul di yalwaan moo tax ne ki amul di muñ ndax ki yalwaan moom wax na la boppam sarax ma soo ma ne nga jox ko soo mënul nga bàyyi mu dem ci sa morom waaye am na gor soo xam ne mi ngi solu ba jekk yore kurusam mbaa mu yore téeréem te amul lu mu añee te mënu ko wax kenn soo lambee sa poos bi jox ko lu mu añee tegoo ko ci loxoom ci loxol yàlla nga ko teg wal masaakiin am na ñoo xam ne nag bu ñu lekkee ba suur naan ba màndi nelaw ba yeew mooy santillon bi defe ne ñëpp lekk nañ ba suur ñëpp naan nañ ba màndi ñëpp nelaw nañ ba yeew moo tax yonent bi saa ne woon laa yuminu laa yuminu laa yuminu ba muy ñetti yoon muy gëmut gëmut gëmut ñu ne ko kan mu ne ko fanaaneb reggaay sa dëkkandoo fanaaneb xiif te fekk xam nga ne daa xiif bokkatoo ci man waaw kay lekk ba suur wett ji naan ba mandi wacc kanet yi muy naaw ci muy tasaaroo ci verandaa wi nga daan naan sa galaas ba mandi jaaxal sa lal di nelaw tam wóor na ne kii nga dendal réerut mi ngi nax naxal ay ay gone bëgg ñu nelaw nee na gëmoo kon wal masaakiin nit moo tax borom xam-xam lan moo tax suñu boroom di woorlu ñu ne daa bëgg borom alal ji ak reggaay bi mos ab xiifaay aku mar ba xam ne am na ñoom dendal ñoo xam ne lii la ñu dëkkee loolu bokk na ci njariñu koor loolu nag lu yomb ba jàngale la jigéen ñi fii ne li ñuy sàgga sàggat seen doom yi ku ci woor ku nekk da ngay yendoo may sa doom ndox muy naan rek ndax sa mar wi ngay yëg mooy tax nga yaakaar ne mi ngi mi ngi mar jox ko mu naan rek ngay fi ne jigéen ju ne jox ko mu naan ngay naxe sa doom bëccëgu weeru koor ndax lan danga ngaa sentir koor gi ne dafa tàng waaye boo wóorul nag mën nga naan looy jooy ak dóor ak loo ne mën koo def moo tax yàlla bëggal mosal way woomal yi xiif ak mar su ko defee ñu wan ñu wëlbatikuwaat jàkkaarloog way ñàkk ñi mën leen a jàppale ci xiif ak mar wal masakin beneen société maanaam beneen personne nga ci société bi te mooy ko amul te ki amul te mënta laaj moo gën a mat a dimbali ci ki am di laaj ma ci ki amul di laaj ndax am na kooku bu xëyee këram balaa ngoon mën naa indi junni kenn ko ne mopp sarxu la am koo xam ne 1000 francs la soxla woo te mënu ko wax kenn kooku boo koy dimbali yàlla day taxaw booy yëkkati mooy nangu mat naa bàyyi xel nag ndax laa yasaluna naasa ilhaafan nga xam ne duñ mukk laaj dañuy dañuy muñ wéy rek ak lekk lu lu doyadi ak wé ak wé ak wéyaale wéradi goo xam ne mi ngi leen di rey te wéradi gi ñoom xam nañ ne mënees na koo consulter ci nii nangamay ordonnance mais ñu koo jënd nga koy romb ak sa oto di ko xëpp suuf jël say wettiit sotti ko ci wetu këram muy gis loolu ñaaw na lool ku ko xool ci sa bopp nag li li ñu wax sentiment chonor nit buy wax dara danga koy nattale ci sa bopp fi ne moo tax ñu ne boo bëggee def mbokk sa sa mbokk dara nattale ko sa bopp ba xam rafet na am déet ñaare boo ko fanaanoo xam ne bu doon yow mu naqari la doog ko def su dee lu baaxa bu la wóor ne boo ko wax boo ko defee mu bég danga ko def waaye nit ku amul ab nattukaay na nga xam ne nga defee ne yow da ngay da ngay or nit ñi di përëm kooku mooy am problème toujours nit day jàpp ne mooy keneen ki ashuur bil aaxarina da ngay sentir sa mbokk xool nit rek ba nga ne ko yaa tëj lan la da ngaa mel ko xaw a sévère mu ne ah, neexul neexul kër ga dara dafaa nekkul loolu day gaa yi baaxee ci lañ daan rawante Aïcha ummul muminin mooy sunu yaay Aïcha xëy na di joxe la ca kër ga di ko joxe di ko joxe ba mu jeex miskin ba ñëw ne ko sarax ndonga wenn beñe képp des ci kër ga wenn beñe mu jël beñe woowee jox ko ko miskin ba mel na daf koo xeeb ne ko beñe wii dong mu ne ko ah doom moom de moo fi des te li muy tuut tuut xeebu ma ko ci sarax ndax yàlla nee na par zarra zarra mooy ay fepp lay joxe bu para para beño bi di ma ko fay par zarra day muy par fepp boo liggéey danaa bari le kon sarax kenn du ko xeeb wal masaakin wal jaari dil qurba ki nga dëkkal te ngeen bokk teg ca nga xam ne da ngeen dëkk bokk ndey dëkk bokk baay dëkk seeni ndey bokk ndey dëkk seeni baay bokk baay kooku na nga rafetal jëm ci moom ndax lan daa am ay àq ci yow am na àqi dëkk comme yow ndax da nga am kër mu am fi kër mu amaat àqi jeneen ndax yéen bokk deret wal jaari dil qurba na nga ko toppatoo ngir lool wal jaaril bi ak koo xam ne nag bokku leen dara dafay tuxu si kooku it am na benn àq muy tuxu gi mu si ci nga ko war a jàppale bu ñu nee dëkkandoo jooju nag du question dëkk ci kër mën naa nekk dëkkandoo ci tool nit dana sësal toolam dana sësal tool diw mën ngeen nekk kayaar seen bitig yi bitig yi dend te yow yaa nga dëkk Abidjan maa yaa ngi dëkk dakaar moom mu dëkk Fatick kon lépp luy niroog ak dend rek moom la arab tudde dëkk ba ci gaaraas ba ki nga fay rangandool nga yor oto ma yor oto yéen a dëkk ok ba ci sax ki nga xam ne day faral di jaar fii di dem jaww be ngay dajee ci oto bi yéen dëkk kon nit dañ koo wax ne ko tënkul wa saaxibi bil jën bi ak koo xam ne da ngeen a dend kepp waaye bokk leen kooku ba tey na nga rafetal jëm ci moom am na ñu ne mooy soxna effectivement mën na koo taxawee ak koo xam ne da ngeen ànd mooy comme ni ma waxee léegi asaay jën bi mën naa koo xam ne da ngeen di ànd di voyager di ma ko ñëw mbaa ngeen am bokk fu ngeen di bayee mbaa ngeen bokk fu ngeen di gore wa bi ni sabil ak ab passager musaafir aju tukki ki ne salaamaaleykum ci waa Touba waa Touba ñoo yore sécurité am comme ci mën a doon ñoo ware ñoo yore ak lekkam ñoo yore kaaraangeem ba ba muy génn dëkk bi dem ci beneen waaye sama yoon nekkul ci diw ana looy def fii jógal fii te kooku di siyaare si woon sëriñ Touba da yow bëgg fi bëgg fee dëkk si na yow nga di ko dàq ka boddu sant sëñ Touba ko yàlla santaani wu ko bisimilah. mën naa ñëw lam yoroon jeex. mën naa bañ a indaale dara sax ne waa dañoo baax lépp nga ca kon ku ci gis kenn na nga ko toppatoo ibnu sabi sax day lekk azaka ndax lan nit mën naa nekk fenn ab milliardaire tukki jotatul ca milliard am ndax këram dafa sore ci démb laay wax transaction bu bu yàggul la am muy envoyé ma wari ak jooni jooni bu ma saana dal nit donte ay li yor ci ay nag ëpp na junni lam am ci ay fas ëpp na junni dañ ko daan jox asaka muy lekk parce que dafa paan dafa paan xaalis daa rawati nag dëkk bu toll ne Touba nga xam ne boo fay dem sax dañ naan la ah demal rek watu baa de moom macha allah ñu man ngan ñu mën gan lañ kon loolu mat naa bàyyi xel wa bi nis sabil kooku dañu war a rafetal jëm ci moom ak kan wa ma malakat aymaanukum wa ma malakat aymaanukum dañ koy tekkee lu leer ki ñi prisonnier ca kaso ba mu ne fa amul ko ko yóbbal añ amul ku ko yóbbal reer kooku may maamalakat ay maanukum fii may waxe bu njëkk nag ab jaam la daan tekki boo xam ne dañ koo jënd moom ko waaye bu fekkente ne nit ki dañ koo tëj kaso nga togg ay beernde yët ko ci ma ci maamalakat ay maanukum la bokk bu fekkee dañ koo tëj ci tooñeel wala ñu tëj ko ci bor nga dem génne ci sa xaalis fayal ko bor bi te yàlla tax loolu mooy maamalakat ay maanukum ci ñi nga xam ne ñooy jël xadaaya question fiqhiya yi di ko développé boo nee ab jaam la fooy jëlee ab jaam kan mooy jaam amatul waaye boo fekkee nit ñu jàpp ko ci bor mbaa ñu poñe ko ci bor mbaa ñu tëj ko ngir bor mbaa ñu tëj ko te amul ko ko yóbbul añ ak nga di ko yóbbul mbaa nga fayal ko bor ba loolu moom mooy ay aymaanu soo ko defee nag li may wax nii boo ko seetloo dëgg-dëgg kenn desatul ci kaw suuf da ngay doon yaay mbaa ngay baay mbaa ngay mbokkum jegeñaale mbaa ngay dëkkandoo mbaa ngay koo àndal di liggéey ak fu seen liggéeyukaay ne mbaa ngay kuñ jàpp nit xettali la juróom benn yi mooy waa adduna ba mu jeex ñooñu yàlla nee na nañu rafetal jëm ca ñoom rafetal ga la niróoleeg ak jaamu yàlla gi nga xam ne mooy jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak dara moo tax yonent bi saa sallam am na ku ñëw ne ko soxna diw de moom daa dëkk di julli rekk waaye nag fu tool dafay wax lu ñaaw ciw làmmiñam ay dëkkandoo yonent bi nag kookaa nga sawara xoolul julli ga xoolul koor ga ca beneen sa keneen ñëw ne ko soxna diw de moom moom daal foo ko fekk lu mu yor ci loxoom bii yaa ko fa baax soo dikkee mu jox la ko waaye nag ku neewu julli la te néewu koor mu ne ma nga aljana moo tax yonent bi man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yudi jaara ku gëm yàlla gëm ne yàlla dana la dekkal wattandikul lor sa dëkkandoo day tax a dem sawara te balaa sawara sax nag day tax ñu jëw la fii léeg nga dégg nit ñu ne ah moom de daa yàqule ñépp ne ndokk effectivement la tax ñu ne ndokk mooy lam yoroon daa yemoon ci boppam léeg nga dégg nit tuut dal ko ñépp jóg di ko ñaanal di ko massawu ndekete yoo lam yoroon daf ko bokkoon ak i bokkam bokk yi mbokk day lu rëy ndax boroom xam-xam yi dañ ne nit amul ci mbokkam ab man-man ndax bi mu daataan judd la mbokk gi organisé wu ki ngay bokkal baay bi ngay judd fekk ngeen bokk baay ba noppi bi nga ki nga bokkal yaay bi ngay judd ngeen bokk yaay ba noppi ki nga nar a bokkal ab dëkk sax ca ësal ñun ñi nekk fii ñëpp kenn ku ne yaa nga jóge fu sori tey kuñ ne woon kaay delluwaat sa dëkk am na ci ñoo xam ne buñ jëlee fii oto ba jant dana sotti duñu egg sun borom di jël ka ca jolof jël ko ca saalum jël ka ca gànnaar di leen man-manee di leen dajale ba mujj ñu ne ñoom ñëpp bokk nañ dëkk Touba ba yàgg ñu ne ñoom ñëpp ñoo dëkk benn quartier ba yàgg ñu ne ñoom ñëpp ñoo dëkk benn jumaa billahi aleykum loolu ku seet effort bi yàlla def ba loolu am koo ci dajeel war nga koo bégal war nga koo dimbali war nañoo jàppalante te yàlla tax moo tax yonent bi saa sallam giñoon giñam la ne du gëm mukk ku fanaaneeb reggaay te sa dëkkandoo fanaaneeb xiif te nga xam ko te xam ko nag mooy maanaam mooy charte bi bu fekkee daa daa fanaane xiif te xamoo ko dara nekku ci waaye boo xamee ne diw mii kat démb la yàlla xam doy na som bi lañ añee te bi jant bi soo séenu ma benn yoon soxna sa dugg ca waañ wa ah jógal bu dë bu njëlli dee yaar jox ko lenn li bu kafe gi dee yaar jox ko benn bi moo tax yonent bi saa sa ndax amoon beneen xadis bu mu gën a taral ci loolu dafa woo benn saxaabi yi ba mu ñëw mu ne ko soo toggati ndawal te ndawal ga mënta daj say dëkkandoo na nga baril ñeex ma kenn ku ne nga tànq te jox ko mu naan wala mu sef ci cireem kon loolu ba tey boo ko settantalee ci ngay xamee ne lekk wàcc sa mbokk rëy na boo xoolee doomu aadama ni mu bindoo nii juróom-ñaari cëram yi boo demee ci cheikhul xadim radiallahu anhu bi muy defar ak mbokk daf ne la dafa am yu bari yoo àndal tamit yàq ak mbokk sa loxo bi nga ñàkk koo téye da yàqu mbokk ci loo ko war a tëyee sa bët bi nga ñàkk koo bank ci loo ko war a bank da yàqu mbokk sa nopp bi nga di ko xerawlu ci loo wut a dégg da yàqu mbokk sa tànk bi nga ciy jéggi jéego yoo wut a da yàqu mbokk moo tax sëriñ bi ne na nga wattandiku sa làmmiñ wi bul ci tudd aw rey doomu aadama jóge fi naan man daa sa ka ma dendal lam def diw lam wax yàq nga de yaa ngi yàq di dem rek sëriñ bi ne benn bi daf ne tëjal sa làmmiñ wi bi ki des mu ne boo ko tëjut wax ci lu baax te noppi ok jeex na waaw ndax lan awwit lisaanaka qawla alxayri taxda bihi inna allisaana lima awwatta yaataadu tamalal saw làmmiñ waxu yiw soo ko defee nga am sens làmmiñ lu mu tàmm rek lay wéyee am na koo xam ne balaa place a neex ci moom danga nga jëw dafa am bu fa jëw amul rek nga gis mu daal yanu ay dàllam rek dem feneen mu ne kon làmmiñ day yàq nopp ci raw inna alladi qad yastamiu alxiiba mushaariku alqaaili fi almasiba ki toog di déglu jëw sëriñ Tuubaa nee yemul ca kookam mais ka ca toog di ko déglu ak ka koy wax ñoom ñëpp ñoo bokk musibon boole ko ñoom la yàlla y dóor kon beneen a ko kon nopp day yàqu mbokk buñ ko jëful ca lañ ko war a jëfe ñàkk sab loxo foo di yàq alali keneen day yàqu mbokk ñaaw njortu ci nit lépp nit nga defee ne baaxul sa sa lenn rek a baax day yàqu mbokk loo jëli sa kër defe na sa kër a war a set kër jaambur a war a taq loolu day yàqu mbokk ab der der laa taltamis min uyubi nnaasi maa sataru fa yahtika allahu sirran sitran an masaawika nee na bul topp naan lu diw def ma lu diw wax te fekk loola yàlla suturaal na ko ca tee ngaa kaay ma nettali la waa ji lim def yaa ngi tooñ nee na soo ko defee yàlla dana xaw wi sutura bis ndax lan mi naar yaa ngi kooku dañ koy fayantoo tout de suite kon bokk na ci ab jullit di rafet njort ci mbokkum jullitam mbokkum jullitam nam cee rafet a mooy lu ñu wax ci nit te muy ab safaan nga ne ah diw de jombale naa ko lool luñ ci wax nga ne aw yiw ma ne man de defaloon na ma lu mel noonu noonu la ab jullit di mel waaye bala ngaa kontaan rek dañuy yàq deru nit diw de ba nga kaso nga ne xamoon naa ko de diw de koy topp bor nga ne xamoon naa ko de te xamoo ko woon de loolu ba tey baaxul day yàqu mbokk moo tax yi nga xam ne mooy yëg-yëg yépp Sëñ Tuubaa de nañ ko nañ ko dapt nañ ko tënk yi yëg-yëg mooy yi mën a dem ak dikk bët day dem ak dikk laysa shujaau alladi yaxmi fawaarisahu yowma taani ida ma alxarbu tashtailu lakin man gadda tarfan aw thana qadaman an almaasi fa daaka al faarisul batalu sëriñ bi nee na nga téye sa bët bi moo gën nga gañe ca guerre ba mu jeex nga téye sa bët bi moo gën nga gañe ca guerre ba dëkk sàngam a ngay xeex ak dëkk sàngam général ba ca gañe ki toog néegam bu bëtam bi bëggee xollu arab mu téye ko moo ko man kon bët te nag bët moom day dem rek di wëri te lu mu amit xol mooy pellicule bi nga xam ne mooy denc li bët di andi moo tax kon inna ba'da dhanni ithmun mooy léppi njortu baaxul nit day rafet njort ci moroomum nitam mbokk yi àdduna bi di dox ci façon doxin wu kéemaane ndax bu jëkk noppa daan yàq ak bët léegi ñu am ay matériel matière kii ma yor nii mooy àdduna kii lu baax lu yonent bi ma soon a wax wala yàlla wax ko ci mbooleem lu ngeen mës a dégg ci àdduna mi ngi fii lu bon lu nit mas a def ak fu mu ko mas a defee mi ngi nii mayor ki toog nag yor ab appareem enregistré ca nit wala mu photo ca nit ca nam ko neexee balaa ngoon mën naa daj ci réseaux sociaux yooyu yëpp bu bëggee yàq waaye nag bu bëggee defarit noonu la mel de soo bëggoon a tagg nit mbala nga yëkkati dara jaam balaa ngoon ñëpp xam ne kee baax bu njëkk nag làmmiñ bi donc ko daan wax aw làmmiñ làmmiñ way wax ko aw làmmiñ balaa génn dëkk bi kenn du ko yëg léegi nga yor kii nag yow di ci dugal sa loola neex di ko transférer sa xol sedd ci guy te képp ku ko gis nag yóbbee nga ko bakkaar bu toll ne bi nga am yow xanaa kon ba de badala dalik la gënoon kay mooy nga def ci lu baax képp ku ko gis nga am aw yu nga nga ko ak moom li ñu wax partagé ñu ngi tudd partagé toujours diw daa partagé nangam li nga bëgg a partagé na nga fexe ba séddoo ki nga koy partagé yiw wa te bu dee aw aye nga fexe ba mucc ca te musal ko ca moo tax ñu ne nit day tuumaal boppam léeg sa sa sa bu sa xol waxee dara nga ne ko waxoo dëgg moo gën nit ñi nan la waxoo dëgg bu sa xol ne bëgg wax dara nga ne ko kooku jomb na loolu loolu bu mu fi amee baaxut moo tax ñu ne mu xaatabatu damir conscience dafay parler ak yow day sa sa sa xol day wax ak yow moo tax ñu bëgg looy bëgg a def tam niiroo ko safaan waaj ko balaa suba nga bàyyi ko boo dee nita sooy looy bëgg a def tamit lu baax gaawe ko parce que gàllankoor daa yomb loolu mooy makaarimul axlaaq jikko ju rafet moo tax ngëneel bi ko nit ki gëne moroomam dañoo defee ne léegi mooy li liy feeñ rafet mbubb rafet wota rafet kër ila axirihi déedéet li nit di gën a nit mooy jikko benn boroom xam-xam sax doon teb tubaab la lam wax kenn mënu koo dindi daf ne nit ñi saa yuñ jàppee ne jikko ju baax wurta am waxu ñu ñuy bonde nee na saa yuñ jàppee ne jikko ju baax du dëgg ñoom ñëpp ñu ngi ci buntu kàmb goo xam ne lee ñu màbb daanu ca biir dañoo war a gëm ne kon jikko ju baax am na avant tout su ko defee nag bu ñu ko gëmee nag door a mucc nag ci daanu ci kàmb gi nag door a waaxu nag jëm ci lu baax waaye saa yuñ réeree ne jikko ju baax am na rek nee na ñun ñëpp ñoo ngi ca danger jikko ju baax fabda bi nafsika nit ki day tàmbali ci boppam fexe ba baax fexe ba soxnaam fexe ba doomam bu ko defee ba ëllëgatee nag bu demee ci dëkkandoo yi ñëpp mën a baax société ci kenn lay tàmbalee kenn kookee mooy baax baaxaale ka ca des feebar yi ngeen digg dégg yëpp ci kenn la tàmbalee Wuhan ga ca Chine bañ ne corona ba am na fa ci kenn la tàmbalee benn personne lañ consulté fekk ko ca moom xoolal ma rek gaawu tasaaroo feebar bi ni mu ñëwee ba Sénégal gi nga xam ne kenn xamul digganteem ak si ñaata kilomètre la mu agsi fi pourtant bu doon ak ak yiw noonu lay noonu lay tasaaroo moo tax ñu ne boo yoree aw ay nang ko fexe ba def ko ne biree almet biree almet mooy misaal mi ci gën a gaaw boo jëlee biree almet bi daal di koy macc ay wa jeex na doo tàkkati soo ko tàbbalee ci ndox ma ay ma ay wa na doo tàkkati waaye boo ca sàgganee ba ne ko koste ko fenn ba mu tàmbalee tàkkit ay wa tàkk na te dutul fayati nit day maîtriser boppam moo tax ñu ne na ngay na ngay peese say wax bala ngaa wax na ngay peese say jëf bala ngaa jëf waaye am tell ma rajax wala yee ko daan wax tell ma rajax mooy koo xam ne li mu dégg moom yoonam nekku ci dana ko nat nettalee nu ko neex tak foo fekk ku mel noonu nag ku ko nettali dara adduna tukki ah. yow loola neex nga di wax ko nit ñi te ku la wax dara nga ne ma dee dara jëru ko kon nit pour mu nekk nit ku baax insaan xayr insaan xayr mooy nit ku baax insaanu char mooy nit ku bon moo gis nga alxuraan bi mu ne wa taawanu ala albirri wa taqwe wala taawanu ala lismi wal udwaan ismu dong la feex albirru lépp leer ismu mooy yonent bi sax daa am ku ñëw ne ko lan mooy albirr ndax suñu waa dëkk daal dañ ne albirr mooy lii kii ne mooy lii yonent bi ne ko déglu ma wax la lan mooy albirr mu ne ah mu ne ko mooy loo xam ne boo koy def sab xol day sedd guy yi sam xel day dal gëriif te ku la fa fekk doo daw loolu mooy lu baax ak ay yan lu mu ban doon nag mu ne ko xam nga luy safaan bi mu ne ah mu ne ko mooy lu ban saa yoo koy def sab xol day firfir yi ngay tëf tëf yi te ku la fa fekk nga daw mu jeex fene bu kenn naan saraxa baax <laughs> sarax gënul yóbbaale yóbbaale ci oto baax na waaye yóbbaale oto nag togg aw ñam joxe ko baax na tànk ndox baax na waaye xam nga li nga koy déggee mooy lii ma wax yépp loo ciy def lu nekk boo seen nit doo daw naan sàngara baaxul tux baaxul ndax boo ko ne boo seen ni da daw yonent bi ne ko nag bul ci sonn al birr mooy loo xam ne boo koy def sa xol day seddu guy yi sam xel dal gëriif demal ñibbi lu bon mooy loo xam ne boo koy def doon nangu kenn fekk la fa te loosi te lu yëngu nga daw kon nag bu ñu demoon di sarxe kee dem di yóbbaale kee dem tànq ndox di maye kee di di xaalis lépp a baax waaye bu kenn bu kee dee sàngara kee di tux fee lépp a bon moo tax nit li tax def lu baax baax ci moom yonent bi sax mu ne albirru laa yunsa albirru laa yabla wa danbu laa yunsa wa yenu laa yamuut ñett yooyu mooy li leer nee na bàkkaar kenn du ko fàtte lu mu yàgg-yàgg yow mi ko defoon nit ñi mën nañoo fàtte waaye yow yaa ngi koy fàttaliku ñu ne ko waawoo loolu de wér na mu ne lu baaxit it du ràpp loo mas a def ci lu baax tey ji la gën a baax ka doon sarxe ngordu tey ji la xaalis gën a baax